الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مقيتي الله تبارك وتعالى sunu xutba tey bëgg nañ koo tënk ci ñetti tomb bi ci njëkk mooy taariful udhiya ñaareel bi mooy hukmuha fil islaami ñaareel bi mooy xikmatuha bu ñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi mooy lan mooy tabaski li tax ñu war koo tàmbali fàttali ci waxtu yi mooy santaane la bu yàlla santaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu niñ koy defee ba pare sunnaal ko sunu kaw mu jëlee ko ci sunna baay ibrahim alayhi salaam kon dina jaadu ab jullit balaa mu ciy dugg balaa mu koy taxawee balaa mu koy def mu xam lan la ko ci sharia sant mu xam lan la ko ci diina sant mu xam lan la ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal bokk yi ci yàlla tabaski te mooy uduxiya jur la wu ñuy rendi maa yusbahu min bahimati l an'ami ayaama iidi l adha taqarruban lillah jur la wu ñuy rendi mën na nekk xar wala béy wala gëléem wala nag lu ñuy rendi la ci xeet yooyu ma wax am fan yuñ koy rendi am waxtu wuñ koy rendi am lu tax ñu koy rendi li tax ñu koy rendi mooy taqarruban lillah ngir jege yàlla kese ngir jaamu yàlla kenn rendiwul tabaski ngir lekk yàpp kese rendi wuñu tabaski pour feet la kese kese rendi wuñu tabaski pour puukëre pour ngistal pour wanewu taqarruban lillah dañ ko rendi pour jege yàlla tabaraka wa taala ni ko baay ibrahima defoon sacrifice la bu ibrahima defoon ngir jege ko boroomam tabaraka wa taala kon loolu moom mooy tabaski moo tax borom bi wax ñu ci qur'an ne lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret ji lan laa soxla mooy ragal yàlla gi la poussé ba nga dem jël gàtt bi di ko rendi ngir yàlla loolu dong laa ci soxla man yàlla tabaraka wa taala kon ki tabaski na xam ne yàlla moo tax muy tabaski du deret bu bari du yàpp bu bari du puukarewu du wonewu taqarruban lillah loolu moo tax ñu war a fàttali mbokk yi ne tabaski wonewu amu ci jël saxar mu rëy yeew ko bisu tabaski ci buntu kër gi ñépp yeew pour ñu wone ne yow kat saxar nangam ak nangam kenn ci ñun fii bu ko yàlla natt woon mu am sikket wala amul tabaski wala mu am séq du ko yeew ci buntu kër gi wala dina ko yeew du ko yeew question bi mooy du ko yeew kon noonu yàlla doon la nattu tey nga nekk ci digg xat-xat nga am béy est-ce que da nga koy takk ci buntu kër gi tontu bi mooy déedéet kenn ci ñun noonu naka noonu bis boo amee denc ko ci biir kër gi ba waxtu wiñ ko war a rey jot soo ko amee aussi nekkul heure bu la neex nga koy rey kenn ci ñun bu xëyee suba bisu tabaski rey tabaskeem amul tabaski mais yàpp la am bala nga koy rey foog jàkk ji nga jullee jumaa ji nga jullee place ba nga jullee imaam ba la jiite rey ba pare nga doog a ñibbi sa kër rey bis boo jiitoo imaam amoo tabaski yàpp nga am moo tax dafa am waxtu wuñ koy rey dafa am aussi bés yuñ ko war a rey mooy bisu tabaski ci ku ko am ci ñaareelu fan bi ci ku ko amul ci ñetteelu fan bi ba bi nga koy am soo ko amee nga rey kon loolu moom mooy tabaski buñ ñëwee ci atte yi mooy baada ittifaqi ala almashru'iyatiha ikhtalafa ahlu lilmi fi hukmiha ala qawlayni ginnaaw ba ñu dëppoo ñoom boroom xam-xamu lislaam yi ci yoonal gu ñu yoonal ne tabaski dafa war a am wuute nañ ndax farata la wala sunna la farata mooy loo xam ne boo ko bàyyee da ngay am bakkaar soo ko mënee soo ko bàyyee da ngay am bakkaar wala loo xam ne dañ la ko sant nii rek mu nekk jaamu yàlla muy sunna wax ji ci njëkk mooy waxu jumhur suñ nee jumhur mooy ci lislaam dafa am ñetti source alquran mooy waxu yàlla sunna mooy waxu yonent jumhur mooy waxu borom xam-xam yu bëri yi jumhurul ulama su ya su yàlla santaanee def rek su yonent bi santaanee def jumhur mooy yàlla dafa santaane lenn nañ ko def fukki borom xam-xam ñoo nekk ci dëkk bi juróom ñaar ñi ne lii farata la dañ ko war a def ñett ñi ne déedéet du farata kon juróom ñaar ñi li ñuy wax loolu la ñuy def loolu mooy jumhur jumhur nag lan la ñu wax ci tabaski mooy sunna mu akkada la sunna la soo xam ne ki ko mën amul droit bàyyi ko su ko bàyyee day am bakkaar eggul ci farata maanaam moom moo topp ci farata position la boo xam ne bi mu taxaw moom tabaski ci ki ko mën mooy sunna mu akkada la dañ koo dëgëral ci waa ji feddali ko feek mi ngi koy mën góor la wala jigéen mag la wala ndaw la daf ko war def ñooñu fuñ tegtaloo mooy xadisu umu salama radiyallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal ida daxala al ashara wa arada ahadakum an yudxiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an rawahu muslim suñu yaay umu salama nee yonent bi nee na su fukki fanu tabaski jotee kenn ci yéen bëgg a tabaski moom waa jooju bëgg a tabaski bu mu laal ci yaramam dara bu mu watu bu mu lelli ay weem ci ñun boroom kër goo xam ne da ngaa bëgg a tabaski amatoo droit watu amatoo droit dagg say wee amoo droit war say poqotaan amoo droit war sa naq amoo droit lelli say mustaas lu dul bisu tabaski balaa ngay julli ji nga def ko doog a dem mais fekk waxuñu tey la bisub tabaski amoo droit laal ci sa yaram dara ñoom borom xam-xam yooyu ñu ne baat bi yonent bi ne ku bëgg loolu mooy illa du waajib mais sunna mu akkada la ñaareelu wax bi mooy waxu al imam abu hanifa ak awzaa'i ñoom ñaar ñu ne annaha waajib ñu ne tabaski dafa war fal force dafa war alal qadiri ci ki ko mën wax jooju cheikh usaymin rahimahullah moom la tarjih ñooñu fan lañ ko teg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp ku yàlla may man wujida saatan képp ku am yàlla may la sa loxo jot sa ginnaaw nga mën a tabaski tabaski woo yonent bi nee na bul jege sunu jumaa yi bul jege sunu jàkka yi borom kër goo xam ne war ngaa mën a tabaski yàlla may na la mën nga ko mi ngi ci sa poos nga lànk bañ koo def yonent bi nee na jarul ngay julli si sunu jumaa yi jarul nga koy jege ñu ne wax ji loolu moo tax muy lu war ci ki ko mën waaye ñaari wax yi bu ñu leen tënkee dajale leen danañ gis ne bii ak bee benn la moo taxoon ñee ñu ne sunna mu akkada la ci ki ko mën dañ koo feddali ci moom ki ko mënul moom wàcc na ko ki ko mën lañ wax su ko defee ñu xamee ko noonu gàtt bu ñuy rey la am waxtu wuñ koy rey waaye am nuñ koy reyee kenn du jël gàtt di ko rey tëral ko jubal ko penk di tudd turu nit di tudd di bokkaale yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah yal na yàlla soril yërmande ki rendi te rendi lul yàlla yal na la yàlla soril yërmande beneen dafa bokk ci bu ñuy rendi ñu ñàdd xar mi jublal ko penk ñawal paaka bi ba mu ñaw ñu teel koo rendi mu teel a dee bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayk loolu lañ koy rende kii rendi day tudd yàlla amul turu keneen bis boo ci tuddee keneen xar mi araam naa lekk medd na yàlla moo ko tere na leer ci ñun képp ku rendi dara lu mu mën a doon waxuma xarum tabaski lu mu mën a doon loo rendi nga teg paaka bi tudd tur keneen li nga rendi médd na ku ci lekk lekk na lu xaram lépp lu ñu rendil lu dul yàlla nag loolu tamit araam naa lekk lu ñu rendil xàmm lu ñu rendil ay tuur lu ñu rendil garab lu ñu rendil géej gi lu ñu rendil dex bi lu ñu rendil teen bi lu ñu rendil dëkk bi lu ñu rendil nit ki araam na yàlla rek kuy rendi yàlla moo tax nga war a rendi soo rendee rendi woo ngir yàlla li nga rendi aram naa lekk kon tabaski rendi ngir yàlla moo tax mu jóg lan mooy xikma mooy maqasid mooy jubluwaay lan moo tax ñu sant nu nanu tabaski loolu di nga fekk bi ci njëkk mooy ataqarrub ila allahi taala bimtisaali awaamirihi mooy dañoo bëgg jullit bi mu jege yàlla ci santaane bi ko yàlla sant mu ñëw di ko def pour mu jege yàlla moo tax yàlla lan la wax bi aaya bi di jeex ci bi mu leen santee tabaski walakin yanaaluhu taqwa minkum ragal yàlla gi yàlla mi la sant ne la defal ki la waroon sant ne la reyal sa doom nga waroon tër sa taaw wala ki ci tegu wala ki ci tegu tër ko rendi yàlla remplacer la ko xar war nga sant yàlla wala waroo sant yàlla fu ñu doon reyee nit ñu remplacer ko am xar yaakaar naa ne nit ñi waroon nañoo sant yàlla ci lool moo tax gis nga Baay Ibrahim histoire bi bi muy am dafa tëdd guddi rek gént ko mu ne inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara yow sama doom man de tëdd naa guddi gént naa yàlla jox ma ndigal ne naa la rey fanzur maza tara xoolal lan la lan la ñuy def doom ji ndeysaan xam na ne yàlla la xam na ne yàlla moo ko santaane ndax borom xam-xam yi nee nañ yonent yi bu ñu géntee wax yu la yonent su géntee rek yàlla moo ko jox information lan la doom ji wax yaa abatif al ma tu'mar bàyyi li la yàlla sant bul ci hésité bul yox yoxi defal li la yàlla sant allahu akbar moo tax tabaski pour jege yàlla la du pour puukare du pour wanewu du pour wane ni nga toll du pour wane li nga am pour nga jege sa boroom pour nga am tiyaaba pour yàlla kontaan ci yow moo tax nga tuural ko deret wa minha iraqu dami nga tuural yàlla deret loolu moo tax tabaski moo gën nga jël njëgu xar mi daal di koy saraxe ki mën a tabaski mu dem jënd xar mi tëral ko ci kanamu yàlla rendi ko moo gën mu jël xaalis bi saraxe ko bañ a jënd xar tabaski bu fekkoon ne néew la nag sa baay dafa faatu wala sa mbokk dafa faatu nga yéeneel ko tabaski foofu nga jël xaalis bi saraxe jox xa nit ne ko am damal jëndi xar moo gën nga jël xar rendi mais bu fekkee sa bopp nga rendi moo gën mbokk yi ñaareel bi ci jubluwaay yi tax yàlla sant ñu ñu tabaski mooy at tarbiya alal ubudiya yàlla daf ñu bëgg a yar ci ñu jaamu yàlla yar yàlla dafa bëgg a yar doomu aadama yi pour ñu tàmm jaamu yàlla moo tax léeg-léeg ñu toog ba ci yàgg yàlla sant ñu waxtu jot mu ne def leen nangam ci lan lañ jóge ci koor lañ jóge woor fanweeri fan gis ngeen ñu ngi dugg ci at ci aj ci la tabaski di xew waxtu wu nekk weer wu nekk bis bu nekk minute bu nekk seconde bu nekk ak yàlla lam ciy santaane yàlla dafa bëgg ñu tàmm jaamu ko moo tax tabaski jaamu yàlla la philosophie boobu la mais bu ko doomu aadama yi déggee woon noonu muy jàmm mais xoolal tey li ci ëpp ay bokkaale ñoo ci nekk ak wonewu ak yàq ak puukarewu lu kenn xamul ci aj màkk bii ñu toll di ngeen gis yàlla li mu waxoon walillahi ala nnaas xijjul bayt man istataa ilayhi sabil yàlla nee na man maa sant doomu aadama yi am naa benn néeg bu tudd alkaaba nit ñi nañ dem aji ko nañ dem jublu ko ñu jaamu ji ma mais xool leen tey añ màkka boobu ni ko nit ñi changé ci folklore ci ngistal ci wanewu fi mu nekk nii kuy aji kuy aji foog nga peinture sa kër foog nga tàggatoo di organiser ay nganale bu ñu ñëwaatee ay film di filmer ah léeg-léeg nga gis caméra bi topp ajaratu bi wala ujaaj ujaaj bi depuis aéroport ba këram di ko filmer loolu lan la yàlla subhanahu wa taala la ñuy jaamu yàlla la ñuy jaamu jaamuñu doomu aadama gis nga yàlla bi mu wax jaamu dafa ne fal yaabudu rabba haza al bayt nañu jaamu borom néeg bi la waxuñu ñu jaamu néeg bi sénégalais yi war nañu xoolaat seen jaamu yàlla suñu jaamu yàlla yëpp ngistal daf ko yàq bokkaale daf ko yàq ay aada daf ko yàq ay bidaa daf ko yàq ñun dañoo lànk ne bu ñuy jaamu yàlla foog bidaa wala shirk dugg ci tabaski nag loolu bokk ci léeg-léeg nga gis ñu ne dañuy rendi xarum tabaski nga gis ñu ne dañuy jàppal xar mi jàpp jàpp xar xar muy jàpp nga gis ñu commencé raxas waaw léegi bu ñuy kuy jàpp sa ñaari loxo nga war a raxas léegi xar mi ana ñaari loxo yi nga gis ñu raxas ñaari tànk ci kanam commencé di raxas gémmiñ raxas bakkan di sëlëm la hawla wala quwata illa billah sa yaram day daw léeg-léeg nit ñe ne kaay rendi ma sama xar nga ñëw taxaw mu ne xaaral ma jàppal ko ma ne ko xar bu ñuy jàpp man xar buy jàpp du ma ko rendi daan lay woon ginnaaw loolu ay shirk la loolu bidaa la wala nga gis waa kër gi ñëw langaamu jàppante soxna si ñëw jàpp ci ndigg jëkkër ji taaw bi ñëw jàpp ku ñëw jàpp ñu def benn chaîne jëm buntu kër ga loolu lan la wala ñu rendi xar mi ba pare nga gis ñu ñëw di capp ci deret bi di def ci jëy yi capp ci deret te xam ngeen deret sobe la te yàlla waxoon na leen lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha yàlla nee na soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret bi deret doo ñuy capp di ko def ci jëy yi ak di tànq ci deret ji ak di denc béjjën yi loolu pour lan la ak dag dagg ci der bi naan der bi boo ko owee téere sàngam nangam la la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi nañ seetaat suñu bopp nanu xoolaat ñun dañuy jaamu yàlla wala suñuy bànneex la ñuy jaamu ñetteel bi ci li tax yàlla sant ñu tabaski mooy ilaanu tawxid wa zikri ismillah aza wa jalla inda zabhiha kii tabaski waxtu wi muy rendi xaram mi ngi feeñal tawxid mi ngi feeñal ne yàlla kenn la yàlla lañ war a jaamu yàlla lañ war a tuural deret moo tax mu teg daan ne bismillah ci turu yàlla laay rendi lii gis nga mi ngi feeñal tawxid mi ngi tudd turu yàlla ci waxtu wu muy rendi xar mi ndax rey ak tuur deret dafa métti yàlla rek moo war a tax nga koy def moo tax yaa ngi feeñal tawxid yaa ngi wane yàlla kenn la xar mi nga tëral doomu jàmbur la dafa am fu mu juddoo am famille bu mu bokk nga tëral ko tey ci sa kanamu boroom di ko jaamoo yàlla mu remplacer sa doom mu remplacer sa mbokk moo waroon rey yàlla rek moo war a tax loolu ñeenteel mooy it'aamul fuqara wal muhtaajina bis sadaqati alayhim yàlla sant nañ ñu tabaski pour ñu mën a lexal ñu mën a jox miskin yi ñu lekk parce que jouru feet la suñu rendee tabaski bi tabaski xarum tabaski ñetti atte ñoo ci am sarax ci lekk ci denc ci amma jaay araam na der bi sax soo ko jaayee araam na der bi soo ko jaayee ki la feesal xam yi wala mu rendil la ko nga fayee ko ko araam na tabaski kenn du ci saraxe dara kenn du ci jaay dara lekk ak saraxe jeex na point lekk saraxe soo ci génnee tànku njëkke mbaa nga génn ci tànku nijaay mbaa nga génn ci dënnu goro mbaa nga génn ci baati samba tabaski bi araam na tabaski ba araam na tabaski kenn du ci génn dërëm yépp yàlla rek soo ci génne daal mooy da ngay saraxe am fi sabilillah amma ay tànku njëkk ay tànku càmmiñ ay tànku bàjjan ay tànku goro amul ci tabaski place nan leen ragal yàlla nan leen ragal yàlla nan leen ragal yàlla ñu xam ne santaane yàlla doomu aadama war naa rus war naa mën a toroxlu di ko soppi ci kanamu borom bi tabaraka wa taala juróomeel ci li tax yàlla sant ñu ñu tabaski mooy atawassu ala nafs mooy yaatalal sa bakkan ak sa waa kër sa waa kër dañu ne bis boobu nañu teral waa kër gi na waa kër gi kontaan loolu moo tax ki déggoon diine ji muy Muhammad keroog ba muy rendi dafa indi ñaari xar yu am béjjën xar yu duuf geen yi gudd am yu ñuul am yu weex mu daal di tëral benn bi rendi na yàlla bii mooy sama tabaski man ak sama waa kër mu tëral beneen bi rendi na yàlla bii mooy tabaski képp ku nekk ci sama xeet waroon am tabaski amul maa ngi koy yéeneel maa ngi koy tabaskil tey sallallahu alayhi wa sallam aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala tabaski ngoog nekk sunu kanam mu nekk jaamu yàlla bu yàlla santoon maam ibrahim alayhi salaam yonent sallallahu alayhi wa sallam ñëw sunnaal ko sunu kaw feddali ko mu daan ñuy wax ne xeet wi muy xeetu lislaam yàlla jox na leen ñaari feet muy bisu kori ak bisu tabaski kon bisu tabaski bisu feetu lislaam la bis la boo xam ne ab julit war na cee rusa mooy yàlla tabaraka wa taala ci li muy lekk ci li muy naan ci li muy sol ci li muy jëf gis ngeen bisu tabaski ci Sénégal foo romb ay soirée la foo romb sàngara la foo romb musique la foo romb col gu bon la ñan ñoo koy def ay jullit doomu jullit yi tuddeewoo lislaam bisu tabaski du bisu mooy yàlla bisu jaamu yàlla la delloo yàlla njukkal imagine leen bu fekkoon ne ay nit la ñuy tëral di rend bisu tabaski ku rendi sa doom ba pare di nga tara dem soirée tontu bi mooy déedéet xoolal lii tuuru deret ci bis boobu bis bi liñ ciy tuur deret loolu yëpp pour lan pour delloo yàlla njukkal pour kennal yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax bisu tabaski du bisu moy ndax du nekk gàcce yow borom kër nga génn ci sa poos jox sa doom na dem mooy yàlla na dem fanaani soirée ndax du nekk gàcc nga ànd ak sa soxna yéen ñaar ngeen dem soirée ndax du nekk gàcc nga organiser ci sa kër ab soirée ndax du nekk gàcc nga organiser ci sa koñ ci sa ruq benn soirée ci bis bu ñuy jaamu yàlla innahu min sha'airillah wa man yu'azzim sha'airallah fa innahu min taqwal qulub yàlla nee na bis boobu bisu jaamu la kenn du màggal bisu jaamu yàlla lu dul koo xam ne xolam ak xelam dañ ciy fekk ragal yàlla képp koo fekk mu sol yéreem bisu tabaski di mooy yàlla waatal ci yàlla ne kii dënnam ak xolam amul lu toll ne tarfatal ay ni ci ngëm yàlla amul bu dee góor bu dee jigéen war nañu rus bisu tabaski ñu bàyyi sunuy jigéen bàyyi sunuy doom ñu dem di mooy yàlla busul bi budul bisu tabaski sax daganul woon waxuma la ak bisu tabaski ma ni budul woon bisu tabaski daganul woon ñu bàyyi sunuy doom góor ak jigéen nekk ci mbedd yi jaxasoo di tambaambalu di fecc ba bët set waxuma la ak nag bisu tabaski اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة